dina waxal boppam. <laughs> d'accord euh, Ousmane Sonko tête de liste dem élection. président président assemblée Ousmane Sonko président assemblée. noo def ba xam ne loolu laa doon bëgg <laughs> xam-xam. alors yéen a ngi gisaane moom. on fait un dernier tour de table sur ça après ñu terminer par El Malick sur une autre question parce que waxtu wi euh, jeex na tàkk tàkk. ah mais kon euh, du ñu wax nii ci ci ci opposition bi xeex pour gestion pour élection transparente. oui mais bien sûr attends ñu ngi ñu parce que c' important acte bi ñu doon ah parce que je crois que c' question dans Athènes après dinañ ci dinañ ci wax pour terminer cette émission Pape Moussa ensuite Pape Sané Pape Mokhtar Pape Moussa allez-y waaw euh, man de personnellement nag euh, El Malick li muy expliquer c' est tellement euh, beau à mais jàpp naa ne réalité bi bokkul contexte nga nekk prison mun na gën a yomb contexte nga nekk si biti parce que sénégalais day sot ci wàllum injustice waaw fi mu nekk nii de kenn ñu fi wax naan nañ leen jàppale ndax dañu subir injustice rek naa nga waaw pour man ne ni yéen a yore doole automatisme boobu noonu nga xam ne Sénégalais moom lañ am presque mm-hmm. même bàyyi woon gars yi ci prison bi sax moo doon gën a yomb ci élection bi mm-hmm. parce que Sénégalais moom mooy mais maintenant nag contexte boobu amatul mm-hmm. Ousmane ah. Sonko bu la joxoñee nga ñëw rek amatul pouvoir ngay gérer teg ci it effectivement am na loo xamante ne facilité na mbir yi mooy ne euh, Sénégalais pour pour pour mu cohérent ci li mu def la le 24 mars. voilà il faut impératif parce que ñi ñeneen tamit. de 2000 à maintenant c'est ce que l'électeur sénégalais a fait ñoom su falee président da jox majorité. cuune qu'ils sont. ñu waree ne assemblée boo xamante ne àndul ak euh, le projet day yàq lépp donc ils se ils se diront que duñ toog fii ba 2029 di am une majorité boo xamante ne voilà daf leen di sonal ci projet boo xam ne dañ koy donc kon ñoom opposition bi. Euh, xaw ma donc Benno n'a pas rendu service à l'opposition. En fait, les députés de Benno les députés de Mbow. Euh, donc. et et ça fait defoon gars yi dañ koy tas. non non man gëmuma. mais mais mais li Pape Moussa bëgg a wax su ma comprendre mooy bu ñu def bu ñu joué la le jeu. ñu ñii dara. bu buñ ko tasee les sénégalais pourront mais de façon. mais dañ ko naruñ ko a tas sax non très sincèrement Issa. Eh, eh, eh. Issa très sincèrement bu ñu bu ñu resté woon rek républicain xool intérêt askan wi. loolu laa gëm. te boobu te su boobaa bu ñu ko tasee bu ko te boobaa bu ko tasee aussi. les Sénégalais vont se dire mais de toute façon même bu fekkee ne opposition moo ëppale assemblée du yàq mais les actes qu'ils ont posés. day euh, wane ne ñi ñoo baax ñu wane seen position wane ne opposition lañ far ñu tas leen après. suñ jamaatee bu ñu amee benn wala. sans député nit ñi xam da ngay def da ngay def. Euh, loolu aussi mën nañu ko dégg. guerre politique bi. priorité ci kaw euh, njëriñu askan wi waaw c'est ça. loolu foo loolooy danger bi quoi et puis après ñoom duñ mënati am argument buñ na léegi jox leen ñu. jox leen ñu euh, léegi président Diomaye war a doxal ba 2029 ci assemblée boo xamante ne pare wu ñoon pour voter budget. Mhm. en fait le refus du débat d'orientation budgétaire. c'est un débat d'orientation budgétaire bu amul. doo ko budget kon kon kooku pare woon na pour sax ne ne président Diomaye du ma la jox sax budget. waaw budget bi la loolu lañ loolu lañ naroon def kay. parce que ils ont montré les signaux mais loolu di continuer ci contexte boobu noonu. on va pas vivre cette cette situation là. te te euh, le fait que mu jox leen ne leen dissoudre leen ma ñaari institution yi. Mm-hmm. loolu du politique politicienne. parce que xam na ne même buñ buñ ko dissoudre nga leen di jox budget. il a installé. am mhm. président Diomaye am na ñu mu installé ci au au conseil euh, kii 16 bi. Mhm. il était obligé. alors donc tant que institution yi mu ngi dos noonu day dem day obligé defal leen budget boo xamante ne moom bokkul ci projet wa. ok donc c'est lu la. du politique politicienne du kii donc ñoom bu ñu defoon. li mhm. lim kii day day accompagner la volonté de Sénégalais bi nga xamante ne matérialiser nañ ko déjà le 24 mars passé. Mhm. donc ñu bañ a def parce que Diomaye aussi du nekk cohérent su fekkee dafa wax ne bokkul ci projet ba pare mu ne natal budget voilà c'est pas cohérent enfin dafa am leneen loo xam ne sax dafa yombal mbir yi Moustapha mooy bi yoon du président de la République président wu parti wala secrétaire général parti bi defar ay liste bi def nangam moom ma nga focus ca liggéey ba. am nañu ñun suñu parti suñu président wu parti. Ah, et yi du ko réer de. waaw non lan. Diomaye ma wax la benn affaire li na ci liste yi ma du ko réer ma wax la benn mhm. li na ci liste yi. démb laa mujj gisee ak moom waxtaan. déedéet benn baat daal wax na ma ko. fii gars yi daal ku ciy defar na fexe ba def ay listam yu normal. dara la balaa ñoo di balaa ñoo ko bëri. mii Pastef mii <laughs> keneen nag parce que xam naa ne moom fas yéenewul changer yota ci doxal yoon. en tout cas kooku moom booy boo ñi ñu xam. li ma wér boobu mooy. ñu daaneel euh, député wu Diomaye. Mhm. zéro député. Euh, député Pastef dara. député wu askan wi. une majorité mais c'est ce les Sénégalais veulent. oui non pas mécanique mais une majorité réfléchie boo xamante ne ñetti euh, yi ñu ko gàll muy évaluation des politiques publiques. contrôle de l'action du gouvernement. voté dafa am loo xam ne mën na rassurer askan wi. est-ce xam nga ñaata question écrite laa jot ci député wu. waaw Pastef waaw. amul pas moins de trente cinq. bi ma toogee léegi ci ci trois mois. muy Guy Marius Sagna. ak mi ñoom Ismaïla Diallo. Ismaïla Diallo dañ maa bombardé ba ma ne mais ñii dañ maa contre wala lan. kenn ki ne ma yow bàyyil ba nga ñëw assemblée Ismaïla Diallo il m'a menacé. ma ne ko ma ba ma ñëw assemblée. <laughs> lool lool loolu la soxla ci jamono ji nag donc je pense que ni. donc les sénégalais peuvent être rassurés que il y aura pas des députés du président mais des députés du peuple. l'opposition aussi va se se se battre pour euh, voilà Pape Sané aywa. très rapidement parce que il faut ñu defar mm, nii tout à fait mais euh, logique bi la logique voudrait que mm-hmm. Euh, que l'élection du 17 mu nekk une confirmation des résultats du 24 mars. Pourquoi c'est c'est ça la logique? Non, je dis la logique voudrait tey jii tey. soo xoolee opposition bi de manière disparate xoolal les coalitions qui sont en train de se mettre en place xoolal les discours qui sont en train d'être tenus te dama jàpp dama pour man dama ne nañ ma nañ